النبي أحمد صل ربي صلوا على النبي أحمد صل ربي صلوا على النبي أحمد lañu màggal Ababakar mi ñu wóolu salli rabbi sallu ala nabi Ahmad salli rabbi sallu ala nabi Ahmad salli rabbi sallu ala nabi Ahmad aywa lañu màggal Ababakar mi ñu wóolu xalifay gursi Yàlla fa jëfi baatin ja ca moom góor du ko fàtte dafa ñu daan bégal ku nekk la mu lay buux ba ci man ak yindem gi ñépp la metti salli rabbi sallu ala ay way na ko yàlla yokkal ya mu fekki amin sutural ñi mu bagana ba ñu allu maktum na ko yàlla yokkal leer ya mu fekki amin ah, sutural ñi mu a na ba ñu màgg maami Babakar na ko yàlla yokkal mu fekki amin a sutural ñi mu bëgga na bañu màggat turandoo capitaine na ko yàlla yokkal leer ya mu fekki amin sutural ñi mu bëgga na bañu màggat turandoo capitaine na ko yàlla yokkal leer ya mu fekki amin sutural ñi mu bëgga na bañu màggat amin ah dëgëral seeni cër ñu uuf ni ba soodaan ba ñu jëy góoru sa dem na góor du ko fàtte jërëjëf jërëjëf si Malick kon nag Sam nga barkeeluwaat bismillah ah, comme comme bi muy ñëw dafa comme bi muy ñëw dafa fekk dafa doon déglu sallu alal Mustafa xaw ma lu ci ne naa ko barkeelu rek ndax xam naa ba mu koy jàng ba mu koy déglu am na fu mu tolloon ma jàng ko rek ndax fa mu tolloon mu tollaat fa ah wax nga dëgg ala Mustafa ya kullaman samia sallu ala Mustafa ya kullaman سميا صلوا على مصطفى يا كل من سمع مشام ما قصدنا كلا ولا حلب لكن لما كتمنا ترحل نجب صلوا على يا مصطفى لاي ويل صلوا على مصطفى يا كل من سمع أم القرى لست أنسى استقاربني والدمع من فرحي في حجري يا صبابا المصطفى يا سيد مصطفى الله ويل صلوا على مصطفى يا كل من يوم منت منت علي بوصل كالخيال مضى يهزني كلما صاحبرت وضربت sëñ Moustapha lay wayal sallu ala ku sopp Seydina Muhammad ya kullama ya rasulallah man lu umru illa wayqat zab nabiya sifrun siwa al khalis zab sallu sëñ Moustapha lay wayal Moustapha Moustapha yaa kulla man yow mara law lam yakun yakun ghayra baasin Moustapha sababu لمجيالك فهذا لك صلوا على الأيوة مصطفى jullit balaa baax di jullit